Kédougou monsieur Ousmane Sylla mi ñu mi ñu accueillir tamit fii ci euh, ci Kédougou pour lancer li ñuy ben construction ou tabaxu fabrique de glace ah di di ko remercier moi d'abord ndax tey ji bu ñu taxaw di wax mom mo mettre à disposition terrain bi nga xamanteni fabrique bi warna fi euh, fabrique de glace warna na fi taxaw di wax tamit ni li dafa wuyu ci besoin moi li nga xamanteni ni mbébétu GIE bi nga xamanteni moy mooy GIE des femmes autonomes de Kédougou muy mbébét bu yàgg bu ñu am nak waxoon ko DER pour DER jappalé len ci tey jii nag ñu ñuy sant Yalla ba mëna a ñëw tey jii def li ñuy wax pose première pierre ah euh, bo xolé tamit projet bi euh, mi ngi ci coût bi buñ ko buñ ko xeyma ñi ngi ci 75 millions te ci 75 millions yooyu nee nañu que fabrique bi dina créer téeméeri emploi yo xamanteni direct la moy ñi nga xamanteni dañ ci liggéey en permanence ak yenen téeméer yo xamanteni day indirect di wax ni li lu am solo la ci dëkk bi bu wesso même GIE bi tay ji groupement wu famille autonome de Kédougou dina indi impact bu rëy

Euh, inauguré ko té tok ñun tamit naan dox bu te loolu moy moy moy moy buntu bi té li di lool tamit waxtaan bu yaatu am monsieur le maire ci yenen projet ah, projet communautaire lañ koy yo xamanteni mom ci tek loxom ci pour ñu ko ubbi fi ci ci pisciculture walum tourisme bi ak secteur yu ràññee nañ ko fi identifié identifié nañ ko mais équipe yi wax nañ ci mëna taxaw liggéey ci ñu xol tay ji nak lañu ñu ñun tamit yoké suñu loxo ndax dégg nañ ko demb ci conseil présidentiel bi Kédougou potentialité rek la machallah donc lépp luñu def rek dafa wara a nekk tamit luy yokk Kédougou té ak monsieur le maire dañ ci taxaw taxaw ci population yeb ñep ñëpp ni que Kédougou tay jii visage am dina gëna changer changé que li gis sax tay jii.